c'est à ses camarades de Khalifa Sall, vous le peuple socialiste. Soyez fiers et soyez dignes dans le peuple. Khalifa Sall nous sommes ñu téye ko yéen xam ngeen ci Khalifa Sall je suis un Saint-Louis wone un Louga wone boppam Nous ñu jógee Tambacounda ñu ñu galgal lundi le 12 Khalifa Sall va se démultiplier sur quatre axes lundi, lundi bi Khalifa Sall a commencé, continuer au Sénégal dinañ am délégation Sénégal Il a Khalifa Sall Il wax Khalifa Sall Il dox ci Khalifa Sall ñun ñu ay gune ñun fu ñu jëm xam nañ ko te Macky Sall bii mënuñu tere jëm fu ñu jëm mënul nekk parce que yàgg naa ko wax nee naa cuune day am limite cuune day am limite même sooy dem école te mënoo da ngay bàyyi wante mënoo toog école rek ngay cartouché rek di ñuul rek di ñulaat rek mënul nekk moo tax Khalifa Sall amuñu xel ñaar ci verdict naa ci wax su kanamee dama ne lundi le 12 ñun waa parti socialiste te xamante nañu suñu biir am na sax ñu ne ñoom ñooy parti socialiste wante ñoom dañu ñoo la gërëm parce que ba Macky Sall faloo ba tey pat lañu def noppi ne dañuy al toppe comme nag dañuy décider dañuy yëngatu ma ne leen lu leen yëngal moo leen ëpp doole lu leen yëngal xam nañ ko te ci ne personnalité moo leen ëpp doole nee nañu dañuy jaay ay carte ñun à partir de lundi dinañ jaay ay carte carte yooyu nag mooy dañuy compter suñu bopp suñu paree compter suñu bopp ba dellu si waat incha allah dinañ ànd ak ñu bëgg a ànd ak Khalifa Sall te xam nañ seen bopp ñu ngi leen di gërëm di leen di sant mooy balaa ñuy jàpp Khalifa Sall mooy ñu nangu ànd ak Khalifa Sall particulièrement ci initiative 2017 dinañ ci ànd ak ñeneen daal di samp suñu coalition te dinañ ko tuddee Khalifa président incha allah le président boobu nag yéene bu libéraux yi am yéene est ñun lañu am te lu ñu wax tey du dañ dañu ne Sénégal Macky Sall c'est une insulte que Macky Sall di jiite réew mel sénégalais. Sénégal c'est devenu une œuvre de salubrité publique que de se débarrasser de Macky Sall et de son régime moo tax ñu ne nous fu ñu ci démocratie ñuy gërëm wa PDS len di sant ak ñu andal dinañ ñëw wuyu si fepp fu ngeen wootee nak dinañ ñëw wuyu si parce que lu len tax jox jóg moo ñu tax a jóg lan ngeen wax da ngeen ne na Macky Sall génnee carte électeur yi dama ne Macky Sall bëgg a bëré bëre bañ a di nga bëré di nga bëré dama ne stade bi fess na del petit combat yi jeex na galgal yi jeex na xar fu fu yi jeex na cubukaay jeex na arbitre bi taxaw na bi nga ñëw sukk bëre bëgg a bëre bëre bañ bëre bëre waaw ne bëgg a bëre bëre bañ a moo tax ñu ne génneel carte yi teg ko ci yoon baa ñu wàcce yoon te du ñu waxantu lu doy lu jot jot na lu jot jot na génneel carte yi sénégalais yi génne nañ seen cinquante deux milliards pour am ay carte d'électeur te ku wax feeñ Aliou Ndiaye wax na kon ku wax feeñ génneel bu ci tegu waa PDS lan ngeen woote da ngeen woote dañuy waxtaan ma jubóo ci fichier électoral bi mais loolu moo fi ma sa am fichier bi santul Sall si fichier bi santul APR fichier bi santul Benno Bokk Yaakaar ñoo ko bokk te lu ñu bokk dañ koy waxtaan loolu moo am bu ci tegu ku wax feeñ waa PDS su ñu wootee mooy nee nañu Macky Sall ak ñi mu àndal naruñu organiser élection yéen dégg ngeen gémmiñam seen nopp ministre Aly Ngouille Ndiaye lu mu wax lu mu wax dafa leer nee na lu mu fas yéene def mooy sàcc élection yi ngir Macky Sall am second mandat suñ ko tënkee ci wax loolu la wax moo tax ñun tamit ñu ne Sénégal ñoo ko bokk nu waa PDS gëmee ëllëgu Sénégal noonu la ñu gëmee ëllëg ëllëgu Sénégal moo tax ñu ne ñun dinañ ànd ak wa Manko taxawu Sénégal di ci woo nag bépp doomu Sénégal société civile di ci woo les groupements de femmes les jeunes di ci woo tamit la famille libérale et la coalition libérale Manko Wattu Sénégal ça sera le samedi 31 mars xam naa renseignements généraux yi ñu ngi toog di ne waaw lu tax gars yi bëgg a marche le 31 mars dama ne Khalifa Sall incha allah le 31 mars il sera à nos côtés dama ne comme Macky Sall nee na c'est le lion qui dort Macky Sall nee na moom gaynde la day nelaw dañu ne biir Ndakaaru gaynde yi ñu ngi fële am ci suuf suy wut monoom mu xam fu mu jëm fii gaynde amul fi ñun luñ mooy démocratie luñ fi mooy citoyenneté luñ fi mooy lu ñu may ci te Macky Sall jinne pesu ko moo tax fu may daanalee bu am xel ñaar ku leen wax ne ni que Khalifa Ababacar Sall ne sortira pas le vendredi 30 na ngeen ko wax Barthélémy Dias nee na lu muy wax ay